18 safar mi ku ne ci réew mi na xam ne moom mi rakk di magal Italie xam na France xam na Allemagne xam na lii moo di magal waroon na kon tey ñuy gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane magal situation bi métti woon na loolu si Touba ba ñëpp amoon na jaaxle si magul Touba gii ak biir nawet gii waaye nag Ecotra mi ngi fii ndaxte seen sixième édition ñuy amal liggéey yu am solo fii si Touba wàccu ñu yoon wa si logistique bu am solo ngir satub dëkk bi assainissement bi entretien bi ak rembalewaat gox yi nga xamante ni sax nag kenn mënu fa woon ak si loolee nag ñu ngi ko tàmbale le 28 septembre doon évacuer ndox yi jéem a fexe ba bépp voie d'accès mën a accessible maa ngi tudd Alpha Samb di directeur technique Ecotra di wax ne euh, ren mooy juróom benneelu yoon monsieur Abdoulaye Sylla président directeur général bu Ecotra yebal ñu fii ci Touba yebal ñu ci wetu sëñ bi pour que lépp li nga xamante ne am na ko ci matériel am na ko ci ay nit yu liggéeyal am na ko ci alal ju muy def nañu jël lépp toxal ko indi ko Touba ñetti semaine nekk ci euh, wëyu sëriñ bi yàlla def mu boole ak sëriñ Abdoulatif Mbacké mu nekk ku ku ku ku yéwén mu nekk ku disponible lépp li nga xamante ne lii euh, moom la sëñ bi bëggoon ci Touba mu duñu ko wax ñu di ci xëy di ci gont di ci fanaan di ci góor góorlu monsieur Abdoulaye Sylla di sant sëriñ bi bu baax di sant yi Euh, sëñ Abdou Latif ci taxawaayam ci ni mu gunge ci ni ñu yiire nekk loo xamante ne lii lu am solo la Abdoulaye Sylla di wax na euh, màggalu ren dafa di màggal gu particulier ndax dafa nekk ci digg nawet nekk ay jafe-jafe moo tax mu sas ñu mu ne lu ngeen daan def at yi passé yëpp na ko multiplier ba ndox lu ngeen ci man ngeen def ko ba ndox jógee ci Touba tali ngeen defaraat ko cet gi ngeen def ko ba mu mat sëkk loolu suñu équipe yi fi nekk guddi ak bëccëg suba ak ngoon se la ñu nekk nekk ci gannaaw sëñ Abdou Latif mu duñu wan duñu digal ñuy def ci sant yàlla bu baax a baax ne lu mu ci def rek xeeb na bu sañoon dana mën a def di fois li nga xamante ne moom lay taxawu ndax amul dara lu sëñ Touba amul dara lu Touba amul dara lu yoonu murid donc li muy def nii dafa di loo xamante ne lii naturel la te bu sañoon yàlla may ko kattan ba muy def lu weesu li at mu jot ci Touba di ko defal sëriñ bi mu ngi sàkku ñaanu sëriñ bi bu baax a baax a baax a yàlla jàppale ko taxawu ko ba Ecotra gi nga xamante ni moo ko jiitee yàlla dëgëral ko ba mu mën continuer di indi man-manam ak kattanam fii ci dëkk bi di ko liggéeyal sëñ Touba di ko liggéeyal sëñ taxa di ko liggéeyal mbokk jullit yëpp ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di doole sant sëñ Abdou Latif ci taxawaayam di ko wax ni ñu koy yóbbante ci sëñ Muntaxa na ko Abdoulaye Abdoulaye Sylla nee na jël na boppam jël na léppam jébal na ko mu ngi ci waawam lu mu ko sant guddi ak bëccëg lu mu bëgg ci moom balaa muy def lenn ci loolu lay jëkk def ci loolu lay jublu ci loolu lay taxaw di ñaan yàlla yal na yàlla dooleel ko yàlla jàppal ko yàlla kàttanal ko ba loolu mu am yéene ci Touba yàlla mottali ko li mu am yéene ci Ecotra yàlla mottali ko. wax sunu yitte jëpp nañ ko jëmale ci Touba ba màggal gi jàll ren bi màggal gi jubee directeur Assane Sylla mii di sama xarit di sama jarbaat mu ñëw ci man déplacé wu ñëw ba ne président Ablaye moo ma yebal ngir ñu waxtaan ci lépp luy tax liggéey bi baax. nu ngeen ko bëggee ñu defee ko noonu wax na président lay wax na ne fu ñu am dara sànc yëpp nañ ko tëj fu ñu am matériel nañ ko déplacé mu ñëw Touba liggéey Touba bi rek nay suñu yitte bi ma Assane waxee loolu man wax ko date bi ma bëgg yu ñëw le 28 ndax la 29 la lañu waroon tàmbali le 28 bagage matériel matériel yi bépp ñëw la 29 yi ñu war a tàmbali maa leen joxoon programme ñeenti fan yi ñuy bale camion yi dama leen di soxla ci mbaleen mi xam nga mbalit mi day bari nit ñi day bari il faut ñu jàppale ñu ba mbalit mi génn ba pare ñu door dugg nag liggéey ma ngacc ndox ak suuf noonu lañ ko defee ak defin wu rafet te bala maa jàll foofu nag danaa fa sant chauffeur yi vraiment chauffeur yi jàmbaar lañ lool nangu nañ lool pasteefu nañ lool ci liggéey bi waxtu wu ne dama leen di xool ci biir waar yi di yéemu ci ñoom te la ci gën a am solo mooy koo ci groupe boo ci boole benn chauffeur Ecotra bu ñëwee danañ jàppaat ci loxob chauffeur ba nga leen booleel dina ma seereel ak sama cant ba bis bi ñuy wàccee rek am na ci sëfoor boo xam ne ba 10 heures ci guddi wàccut ndax mbooloo ma ñoo ko ne mënuñoo dem te sëñ Cheikh ñëwut te yow it mënuñu fee bàyyi noonu la toogee ak ñoom ma ne ko heure bi nga waroon wàcc jàll na waaye dinaa ko wax sa kilifa noonu laa woo fàllu say waxtu te ñëpp noonu lañ liggéey waaye kon bu may dellu si damay jot seen sëñ cantu sëñ Mountakha ci président Ablaye Sylla sëñ Mountakha sant na président Ablaye gërëm na ko ndax xam na yéeneem ci liggéeyal sëñ Touba waaye nag ndimbalul jàmm bi wala tafeexu taale bi mi ngi yem ci nga am yéene liggéey Serigne Touba te la nga lépp nga di ko ca def bu boobaa Serigne Touba moo lay fayal boppam moo lay dimbaleel boppam moo lay taxaw ba nga jàll ba weesu ba yema yemoon loolu président Ablaye moom na xelam dal ak njabootam ci ne Serigne dana ko gàttandu ak ndimbalam dana ko gàttandu tafeexam opération yu am solo yi nag seen kàngam yi ñoo ko doon coordonné dellu si waat si taxawaay bi bokk na si gox yi doon intervenir moo doon suuxa bi ñu agsee fii gis nañ fi ay mbedd yi yàqu ba askan wi sonnoon ay kër yu bare ndox loolu ba tamit seeni i borom génnoon waaye tey ji mën nañ jàpp ni lépp mi ngi seen ginnaaw Mustafa yaa xaafir sunubi yaa xaribu inni hubaydun haahuna xaribu لأبي ساقة والإخوان جميع شهادة دارنا قن يا سميع هب لي في عسى دها الإجابة بالمصطفى wala di waa Fallou Seye maay coordonnateur euh, at bi di juróom-benneelu at euh, Ecotra di mobiliser di dajale matériel ak personnel am yëpp indi ko Touba bu ngeen xoolee suñ ginnaaw matériel bi fi nekk euh, ay fukki camion ñi ngi ci lu ëpp fukki lu mat 16 euh, camions ñi ngi fi ay camion benn ay citerne nga xam ni moom la ñuy mboqee ndox mi def ko ci pour génne ko ci dëkk bi ay moto pompe yoo xam ni dañuy dem ba téeméer ak juróom fukk ci mètre cube la ñuy la ñuy la ñuy pomper par heure ak euh, cuve carburant bi nga xam ne installé nañ ko fi aussi nga xam ne 30 000 litres de carburant moom moo ci nekk pour approvisionner matériel bi def liggéey bi ak matériel bi nga xam ne mooy def logistique bi bu ñu bëggee yóbbu machines yi moo koy transporter ak véhicules yi nga xam ni ñi coordonné activité bi ci lañ nekk. donc ci wàllu liggéey tamit li ñu tàmbalee woon mooy mbale mi mbale mi euh, kër euh, dina yi ñëwoon ci mbali ci ci ci mbalit mi yëpp bu ci nekk camion Ecotra ma nga fa wala machine Ecotra boo xam ni bu ñu dajalee mbalit mi ñoom ñoo koy ton tonni fexe ñu ko génnee ci dëkk bi. bi loolu jeexee tamit am na ay tali yoo xam ni ay piste yu nekk ci biir dëkk bi yoo xam ni sàmm mi nga fa ma leen di ñaax tamit bu ñu fa jógee ñu dem xooli ko lu mat 1,5 kilomètre defaraat nañ ko foofu ak Daaru Xuddoos tamit lu war a mat 500 mètres donc lu toll ci 2 kilomètres de tali yoo xam ni réparé nañ ko ci biir dëkk bi biir université bi aussi defal nañ fa benn terrassement boo xam ni maanaam euh, UFR bi nga xam ni war nañoo war naa ubbi ci at mi fexe nañ ba euh, cours bi nekk devant ñu defar ko ba nga xam ni bu tawoon tey jii du taa ba tey nit ñi euh, ndongo yi nañ fa mën a nekk jàng ci seen teeg bakkan bon ci wàllu pompage bi aussi comme weeru nawet ci ci nawet bi lañ ñëw dëkk bi ñun ñëpp gis nañ ni mel ak ndox donc am na ci ay kër kilifa yoo xam ni pompé nañ fa lu war a toll ci 11 million de litres d'eau génne ko ba pare def fa terrassement nga xam ni seen gan yi buñ nañ mën a màggal ci jàmm bon Soura aussi quartier la boo xam ni daanaka quartier bi yëpp dafa xawoon ndox mi daf koo xawoon euh, tënk lu mel ni même jàkk ji daan jullee ay yenn kër waaye fi nekk nii bu ñu demee pompé nañ fa lu war a toll ci vingt cinq millions de litres d'eau génne ko def terrassement yi ba fii ak suba bu soobee yàlla danañ koo eggale boobu tamit ñu ngi leen di ñaax pour bu ñu kii ñu dem xooli ko liggéey yi nga xam ne moo fi des nag mooy Madiana tàmbali nañ fa def euh, yi nekk Touba nga Euh, fan lañ ñu yabal fu ci nekk yóbbu nañ fa suuf ngir sëkk ko soit ci biir kër gi bu dee dafa am ndox wala ci buntu kër gi donc loolu ñu doon ànd ak liggéey boobu ak sëñ Isaaxa Mbàkke donc lu ëpp téeméeri camion def nañ ko ci te li nga xam ni indi nañ ko suuf ci Touba nga xam ni moo dem ci terrassement yi ñu doon def ci sëkk kër yi ñu kër kër kër euh, ñu dëkkee Touba ak ci tali yi fi mu toll nii ëpp na cinq 500 camions. maanaam ëpp na juróomi téeméeri camion te dañuy continuer ñaari fan yi nga xam ne ñaari fan yi nga xam ne moom ñu fi dese dañuy géem a continuer ci ci liggéey boobu ñu def diirub ay waxtu fii si suuxa jóge fii nag dem fi nga xamante ne mooy saam saam bokk na si périphérie bu Touba du ñàkkit mu am ay gàllankoor comme ni nga ko daan amee mais ren jii de ba Ecotra ñëwee lépp yemb na bi man xalaa jumlatan min waxaraab sayyidina muhammadin وسيلتي إليك في نيل الصلاح وسلم وسلم علي tali boo xamante ne bi tali bu am solo la euh, euh, mooy tali Sam dafa jóge ci tali bi jóge Kébémer di dugg Touba euh, jëm ci quartier Sam mu nekk mbedd moo xamante ni bi bu dëkk bi xatee oto yi di jóge Ndar di jóge Kébémer et cetera bu ñuy dugg Touba fii la ñuy contourner Euh, dem ba ca ba ba quartier Sam ñu contourner ci à gauche dugg ci dëkk bi oto yu bëri dañ koy emprunté mais ndox mi def ko yàqoon ba kenn mënu fi jaar même oto waa quartier bi dañu amoon ay jafe-jafe ak seen transport régulier pour tax yi di fa dem donc euh, marabu bi na nañ nañ ci taxaw defar ko ba ubbi ko ndax am na solo lool pour ñoom looloo tax ñu liggéey ci liggéey boo xamante ne bii Euh, reprofilé waat nañ ko dolliwaat nañ ci rechargement compacté nañ ko ba fii mu nekk mu ngi daw normalement nekk na un kilomètre cinq cent partie bi nga xamante ni dafa am ndox dafa nekk ci benn projet ça fait cinq mais ci beneen projet bu euh, euh, Touba amee je pense Promoville amuñu droit laal ko mais defar nañu benn voie de contournement de de cette partie ah ba oto yi bu ñu duggee danañ jël voie de contournement boobu jël à gauche dugg ci biir dëkk bi donc loolu moo tax euh, sëriñ bi noonu nañ ci taxaw yàlla def na jàmm def nañ ci liggéey boo xamante ne bi am nañ yaakaar ne euh, bu oto yi ñëwee danañu mën a jàll correctement et que dana wàññi xat-xat bi am ci ci biir dëkk bi. dem nañu université Cheikh Ahmadoul Khadim foofu tamit amal fa lenn si ay travaux yu am solo. nekk mooy université Cheikh Ahmadoul Khadim. waaw bi ñu dikkee ci mbale mi ànd ak Baye Fall yi le 2 ak le 3 safar. ñii lekk yor projet bi dañu sollicité woon parce que UFR bi nekk suñu ginnaaw nga xam dañ koo bëgg a ubbi ci at mi ñu jublu euh, année académique bi dañu sollicité woon pour que ñu defee ay terrassement ndax terrain bi ni mu meloon praticable woon donc bi ñu dikkee jàppale nañ ci mbay ci ci bale bi euh, bi ñu bayee ñu tonni mbalit di yóbbu waaye teewul tamit def nañ terrassement ci zone bi nii ba nga xam ne bu tawoon tey jii ndox mi du taa dina dem ci zone bi nga xam ne fa la ñu def caniveau yi def nañ terrassement aussi ay route d'accès ak voirie interne bi bon lépp chemin en terre lañ ko def pour l'instant mais dina permettre au moins mu mën a circulable ba oto dina fi mën a dugg mën a génn sans nga am problème bon ñi ndongo yi nekk war a jàng tamit dinañ mën a nekk ci université bi sans sans problème parce que c'est un projet en cours aussi. ñu ngi ko tojee mausolée bu Serigne Sidi Makhtar Mbacké fii si Guy Mbind travaux yi ECOTRA moo ko yoroon lépp nag pare ren ji ñu fa yéene ko nag inauguré si màggal gii doon liggéey am solo njabootu Serigne Bara Mbacké yëpp teewoon nanu seex kilifteefu Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Sidi Makhtar Mbacké ay seere jib na fa ma jóg la géeyal sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha ci barke Cheikh Moustapha mbàkkeeg sëriñ Baara li mu am sax ci écotrace nga lépp ci ci yoon nee na ci loxo sëñ Cheikh bi la jaar nee metti woon na trop ba ci weer ñu génn ba ci at ñu génn mais sëñ Cheikh bu mosu ko fàtte lu mu guddi guddi lu mu xat xat xat fi ñaan fi ñaan war a jaar ak sëñ Maxtaan jaaree na ko fàtte sëñ Cheikh Abdoulaye mi ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal te boo gisee ñaari kàddu yooyu rek la ma waxloo ne mu ne ma bu ci teg leneen lu dul wax mbooloo mi ne moom xam na ne moom moo am chance moom borom ak njaboot bi mu mën a defar xabru bi moom am chance euh, suñu suñu borom tànn ko ak beneen kàddu bi mooy mu gërëm la yow sëñ di la ñaanal xam ne kóllëre boobu dina ko sàmm mais ñun ñi ay rakam tam sëñ Cheikh incha allah rabbi dinañ ko sàmmale ko leen la tabax dafa am solo ci l'islam kon métier la mu am solo moo xam ni yéen a ngi ci métier bu noble li mu laaj nag muy barab bii jox ngeen ko àqam sëriñ bi sant na ci bu baax ñi mu bokkal si Sidi Muxtaar dañu ñii dañuy tàbbi ci biir ku ñuy tudd di tudd sëñ Baara tàbbi nga ci biir ñooñu ñëpp amee nañ leen ak cant goo xam ne dañ koy béral ba àdduna bépp dégg ko ci lu dul buukarewu ci lu dul ngistal cantu xol la gu tàm bu génne ci xol jëm ci ay xol jëm ci ay mbokki taalibe yoo xam ne na leen war def nañ ko ngir jëm yàlla ak jëm yonante bay jëm Cheikh Ahmadou Bamba jërë ngeen jëfati sëriñ bi mu ngi sant bu baax itam euh, Abdoulahi Sylla kadalika moom it li ma waxoon ci ñii su sañoon kenn du ndax booy jëfal yàlla moom bëggoo sax sa loxo boo jëfee sa loxo ndeyjoor bëggoo sa loxo càmmoñ jëf ko waaye nag li ma wax tàmbalee woon nii soo ko defalee lu baax sañu du ko nëbbu ndax ngoray tax kon nee ñu ngi koy sant bu baax a baax. ECOTRA ca booba le président directeur général Abdoulaye Sylla di taalibe si dëkk bi gis ni kat bu ñu jógul liggéey dëkk bi keneen dañoo di leen koy liggéeyal moo taxit def nañu seen loxo seen poos boole kook pas-pas gu mat sëkk comme ni nga ko doon defee at bu nekk. 18 safar mi ku ne ci réew mi na xam ne moom mi rek a di magal Italie xam na France xam na Allemagne xam na lii moo di magal waroon na kon tey ñuy gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane magal.